waaw dèjà xam nga dialogue bi président de la république moo ko woote woon ginaaw bi nga xamante ni dafa am ñaar yu fi jàll ba ñett président de la république dafa sukkandiku ci assemblée nationale ginnaaw ñoom bu ñu déposé enquête parlement boo xamante ni ay député ñoo ko sàkk woon jëme ko ci conseil constitutionnel ñooñu dañoo bëgg ñu def résolution pour taxawal enquête parlement ngir am lu ñu di tuumaal. président de la République ah ku am lu ñu tuumaal nan def enquête bi ay député am wote ko man ma bokkoon su ñu ko wote parce que bëggoon naa mu leer ñu toog si ñetti fan ba ñeenti fan même député yi defaat beneen proposition de boo xam ni dañuy modifier euh, li nga xam mooy constat article 31 ngir makki Sall ñu man ko yokkal mandaam ba mois de août jëm décembre mu am amendement jëm le 15 décembre ma taxaw lànk ni lu du fa amee parce que li tax du fa amee mooy ci constitution bi article 103 bi alinéa 2 dafa wax lu leer mooy mbirum mandat kenn amul sañ-sañ yokk ko wala nga wàññi ko article 27 bi ñëw gën ko confirmer mu ne diire bi 5 ans la diire kooku jàpp naa ni man bu fekkee dama nekk ci réew mu normal ñu nekk di xeex démocratie moo far am en tant que député de peuple waruma accepter loolu moo tax bi loolu amee ma bokkoon ci député yi déposé woon recours pour conseil constitutionnel ngir ñu annuler loi bi Macky def décret aussi ñu boole annulé lépp conseil constitutionnel bi ñu defee loolu Macky Sall si boppam président de la république wax ni li conseil constitutionnel digle dana ko def damay woote loo xam ne waxtaan lay doon ngir ñu jàpp datu élection yi ak bu mu fi jógee le deux lan mooy am lii la wax mais ñu rafetlu ko parce que bokk naa si ku bëgg jàmm sim réew bu fekkee nit ki yor réew mi nee na la xam naa ne conséquence nee na ma le deux ngay jeexal accepté naa le deux lay jeexal damay dem waaye bala may dem bëgg naa ñu waxtaan ba tënk ba bu may dem ku ma maa remplace ñu xam kan la doon parce que constant bi jamono yi ñu toll nii ak situation bi ñu am parawaarut parawaarut lan moo war a xew après bu demee la deux ndax musu xalaat ni lii dana am cim réew parce que constant bi ñaari article moo fi nekk article 36 alinéa 2 mooy wax ne Macky Sall njiitu réew mu nekk bu fekk élection am na moom mooy toog yor intérim bi continuer ba keroog mu passation kooku mooy ba élection amoon le vingt cinq février le deux moo fi kon nekk fi ba ki nga xamante ni maanaam mooy euh, ki ko wuutu war a ñëw mu def passation lii mooy li war a am mais booba xamul woon ni njiitu dana fi toog ba mandaam jeex te élection du am mosuñu ko programme ci constat bi beneen bi article 31 mu ni ba fekkente ni tey njiitu réew dafa dem ba àgg foo xam ne dafa mënatul wala mu faatu wala mu démissionné article 31 mooy ñëw automatiquement parce que loolu suppléance mooy nekk président assemblée nationale pour le moment neen démissionné wul élection amul problème am na problème boobu waxtaan moo ko mën a jur bu fekkente ne woo nañu ma jël sama kàddu man taxawal askan wi nekkoon candidat comme ni ko ñëpp nekk am liste symétrique bi aussi wut samay parrainage dem conséquence ni ma danga am ay double externe te double externe yi ma am ak nit ki ma amal double externe mooy Rose Wardini Rose moom si boppam retire na candidature ndax double nationalité mais la ma amoon moom double externe nan ma koy def te buñ ma ko joxoon ma jàll candidat muy benn problème ñaareelu problème bi ñu ne ma yaw li nga am ci ñu ko ci fichier électoral bi 8000 yëpp Touba la ndëkk te 8000 yooyu noonu ma ba may nekk député yor seen carte mais y a un ba pare ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye wax ne lu sel bii contrôler parrainage bi bureau lañ ko defaree wala saalam bi mu nekk ministre de l'intérieur ñun mosuñoo gis lu sel boo xamuñu ko te moom mi nga xamante ne waxoon na loolu tey daal nekk candidat kon ba lu sel la ki contrôler parrainage yi information bi xamuñu ko fu mu jógee problème yooyu yëpp bu amee man ma jàpp ni ñii ñu éliminer. waruñu leen woon a éliminer ñi jàll am na suñu wax waruñu woon a jàll. moo tax man ba ma jëlee proposition ma ne damaa d'accord ñu tàmbaliwaat mbir mi man loolu laa wax nañu ko ubbiwaat ñëpp mën a bokk comme moom ni mu ko waxee la élection inclusive et transparence parce que inclusive boo ko waxee doo génn kenn te man li ma gën a ñor ci élection yi élection yu candidat yoo xamante ni Ousmane Sonko bokk si Karim Wade bokk si Cheikh du Bara bokk si élection amul. loolu laa gëm parce que ñun ñoo yore Sénégal bi bu fekkente ni tey dialogue bi ñëw na ñu def ay commission man dama yónnee mandat parce que man ba ma waxee la war a wax bu fa Macky Sall toogul man awuma sañ-sañu toog parce que Macky Sall mooy sama nawle ci politique ma yónnee samay mandataire ñu dem teew ba ma demee la ma leen proposé mooy nañu ubbiwaat processus électoral bi ñëpp mën see bokk bi ñu demee ba wax am nañu d'accord ci loolu mën a am na ñu wax aussi te ni maanaam buñ ko ubbee d'accord nan mais léegi Macky Sall deux bu jeex na ne am nañu d' accord ne Macky na fi continuer mais man d' accord ma Macky Sall continuer moo bëgg mu leer parce que bi suba la dialogue ba mu jot sama invitation Macky Sall si bopp moom laa téléphone ne ko président est ce que la nga waxoon da nga koy confirmer suba waa wala déet mu ni man Cheikh man le deux damay dem soxlaatuma dara dama woote pour intérêt askan wi mais bu waxee loolu man en tant que intérêt askan damay dem teew parce que kàddoom laa gëm. mais bu fekkente ne wax na ni ay nit yoo xam ne seen intérêt bopp moo tax ñu jóg ñu ni noo Macky Sall na fa continuer toog bala deux juin d'accord ma ci loolu. parce que lu ma lànkoon ci assemblée nationale pour ñu yokkal ko bala quinze juin noonu laay lànki pour ñu yokkal ko bala deux juin parce que bu ñu ko yokkee rek dañuy veelu constitution bi mooy le deux Macky Sall na dem yoonam bàyyi intérim bi wala mu jox conseil constitutionnel mu xam kan mooy ñëw ngir ko ñu mën a continuer suñu procédure électorale te procédure électorale bu ñu koy temps continuer bu ñu bàyyi Karim Wade bokk te Ousmane Sonko bokk. loolu d'accord ma si na ñëpp bokk nit bu Karim Wade bokkee na Ousmane sonk bokk parce que loolu mooy li nga xamante mooy xeex injustice waaye mënoo def loo xamante ni da nga koy tuddewaat saaru complot bis jam ñaajoo sikaat pour que maanaam te Ousmane Sonko bañ a bokk nga bàyyi Karim Wade mu bokk kooku accepté wu mu ko. loolu ay nit ñoo ko proposé mais bu nee replis processus électoral bi waa DC dañoo wax ni dafay gudd bu ëpp nañu replise diggante li nga xamante ni mooy parrainage bi. ñoom ñoom DC loolu lañ wax na replis procès électoral bi mais li gën mooy li nga xamante ni moo jëm ci mbirum parrainage bi nan ko replis mais loolu bu buñ ko waxee candidat yu jot jàll ak yu jot daal ñoom ñëpp lañ war a xoolaat seen seen man loolu laa gëm mais tey bu fekkente ne da waa d'accord léegi kon ñu fi nekkoon na leen bàyyi waaye duñ ubbiwaat léegi bu ñu ubbiwaat nan la ñuy ubbee Ousmane Sonko mi nga xam dañ ne koon léegi dossier suicide moo tax mënoo maanaam ñu mën ko annulé modification code électoral article 30 est-ce que loolu dana si diggante bi gis nga nañu bàyyi askanu ñuy foye te bàyyi caaxaan yi buñ dee def nañ def loo xam ne ñëpp ko bokk mooy nañu reprise processus électoral bi man loolu laa gëm dama jël samay responsable parce que ñi nga xamante ay candidat lan ñu leen tudd ay candidat yu mag ba ñu bind lettre yi Mimi Touré ñoom ñoo ko jiite woon ak ñoom buggaan bokkoon nañ si te d'accordoon sa mais amuñu fit ñi mu koo wax mais nit ki fekkee ñi mu woo wax dara juri nga laajum réew man la ma gëm mooy pour processus électoral bi baaxul nañu ko reprise tàmbaliwaat ko pour ñëpp mën a bokk Ousmane sonk li ñu ko éliminé jaaru si yoon li ñu éliminé Karim Wade jaaru si yoon si yoon bu ñu ko dee reprise tamit na Ousmane Sonko bokk Karim Wade bokk mais bu ñu def galgal def deux fois deux mesures parce que bu fekkente ni tey ñi ngi wax ne d'accord mbirum Karim Wade mën naa bokkaat mais waxuñ si mbirum Ousmane sonk man wax naa si mbirum Ousmane Sonko te bu ñu taxee si commission bi ña fa nekkoon ñëpp dañoo war ni ñii lii la ñu wax. lii leen d' accord ñii lii leen d' accord mais bu ñu wax ni commission bi yëpp d' nan pour Macky Sall ko ne man d' accord ma si. Sall 2 dafa war a quitter fonction dem bugg fi sax neen sax bugg fekk élection yi man li ma wax nii ci dialogue bi loolu la ma wax bi ma téléphoné mooy man bëgguma sax fekk élection yi parce que coow li dafa bari te man pare naa si mais fii la deux avril élection du am loolu moom si surtout du am parce que li Paul il faut ñu respecter li nga xam ne bi ndax procédure dafa wax ni. pour camp élection am il faut mu am campagne 21 jours jour bi ñuy wote ak jour bi ñuy def passation 45 jours la loolu mënu fi am mais léegi à door le deux moom mën na convoquer pour processus électoral bi 80 jours mais bu demee ki koy remplacer moom mooy continuer procédure bi muy président Assemblée nationale léegi loolu moo tax man ma d' accord si moom ñu def élection yi le deux le deux accord naa si waaye moom bu mu ko fekkee na dem yoonam parce que tant moom mi ngi fi nekk jàmm mënul am ci réew mi parce que pare na ku pare nag mënutoo am légitimité te mënutoo contrôler parce que lan moo la koy may légalité boo xamante ni boo toogee kon ne sa euh, nekk président de la république yan dossier ngay signé yan accord ngay def parce que askanu falutun la loolu moo tax ma ni euh, il faut que loolu ñu ñu ñu euh, ñu waxaat ko xool ko parce que nag commission bi ñëpp d'accord si loolu. xam nga conséquence am moom mënut a weddi boppam parce que si texte am nee na moom mënut a weddi boppam lu mu xas jël décision lay continuer ñu ngi observé di xool conséquence dal mais li ma gëm te xam ko mooy à partir le 2. Macky Sall man rek ko comme président de la république lu wér laa wax te su boobaa dinaa dem pale ba xam kan moo may jàpp parce que bu jeexalee jeexal na bu ñu forcé nit ñoo xam bëgguñu ko te moom si boppam nee na bëggutul kan moo nekk si ginnaaw intérêt pour que moom mu ko ne toog pour que bëgg a taal réew mi la ni opposition bëgg a taal réew mi ñenn ñi noonu la ñu nekk si nguur gi bëgg a taal réew mi ngir seen intérêt bopp loolu nag duma ko d'accord man askan wi ma ñor dëgg laay wax. mooy bu ñu dee repris procédure bi mooy wax man Ousmane Sonko bokkaat ci course bi la mag euh, Karim Wade bokkaat ci course bi ma bokkaat ci course bi moo tax ma ne repris procédure pour intérêt askan wi. ñi jot a jàll ñi jot a jàll yëpp ñoo yem même pour légalité parce que le 25 février bi passé bi xasee ba jàll mooy parce que candidat amatul ndax conseil bi muy joxe dafa wax ne élection yi waroon am le 25 février mënut a amati mais jàppagul date. te ñi jot a jàll comme ñu si baree bari dañoo jàll si loo xamante chance la parce que loterie nationale lañ jàlle taman ñi jàll nii kenn doyu ma si jiite ma wax dëgg yàlla ñu ma parce que kenn ku nekk xam naa la koo xamante ne doyu la pour jiite la ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp maa leen ëpp niveau maa leen ëpp expérience maa leen ëpp mbooloo Ousmane Sonko waxee nopp Karim noonu léegi bu fekkente ni ñun terrain vide nag nga gis benn tey yaaw jàll bu ñëw jël réew mi dem ni mooy roi de Ragne léegi est-ce que da nga ko d'accord ba bëri dina wala Yékini wala euh, Modou Lô mais il faut ñu arrêter aussi parce que bul ni yow da ngaa fexe fexe waxtaan ba jolog ba bokk ba pare nga ne du ñëw parce que bëgguma keneen bokk kooku ko def da ngaa bañ situation bi ñu toll nii kenn mënu koo génne ci processus électoral bi kenn mënu koo génn ci ñu war a xëccoo baatu réew pour mu bëggee élection yoo xamante la comme ni ko waxee mais dafa am leneen loo xamante ni pièce la si biir parce que Ousmane Sonko amul benn condamnation boo xamante ni tey bu wér la parce que bu dee condamnation dossier Adji Sarr Ousmane Sonko kooku contumace bi daane na ko mais dossier Mame bi moom la conseil constitutionnel éliminé pour mu nekk candidat même bu fekkente nii la am na si bi ñuy wax dañ si agsi Macky Sall dugal na ko loi si mënut a pardonner li nga xamante ne mooy euh, le le dossier Mame Mbaye Niang sax xam nga man jàmm laa bëgg ci réew mi dal laa bëgg ci réew mi man dama bëgg may bu mooy jiite réew mi damay fekk réew moo xam ne duma ma nekk naan damay faylantoog fay faylantoog nit parce que li tardeel Macky Sall yëpp mooy après Ablaye Wade lii ko dal yëpp fay-faylonte la parce que bu neexoon Ablaye Wade avant mu fi mu def la wax am na si boo xamante ni lam jotoon def si mandaam yëpp dañ koy effacé mais Ablaye Wade c'est une république démocrate la xam na ni yooyu du ko def ndax kenn ku nekk tey li nga def bi nga la dénkee yow yaay responsable comme dugal na ko ñun suba lañ si war a jot bu si jot dañu xool lan mooy expliqué motif bi waaye loi bi mënul walaabul mukk wala ñu jàll la ko te ñun rey dédommagé wuñ leen. ñu ñàkk seen i cër dédommagé wuñ leen ñàkk seen alal ak seen liggéey dédommagé wuñ leen loolu loi bu ko def bu jàll fii su boobaa daan la yóbbu CPI parce que ñi nga xamante ñoo ñàkk seen Sénégal lañ bokk mënuloo rek jéem porté say parce que nag loi bi am na ñooy porté quatre cinq pour cent yëpp waa Benno Bokk Yaakaar lay porté ak nguur gi il faut ñu waxante ko dan koo def ni pour laawaale mais tey jii ñi nga xamante ñoo doon génn yor ay pick yu weex di génn si ay seesu parti ñaan lan mais ñooñu xam nañ leen am nañ vidéo yi mais kooku tey jii bu fekkoonte ne jël nañ réew bu ne topp mën nañu gën waat vidéo yi ñu topp ñooñu ba xam kan moo leen ko sant mën na dem ba si Macky Sall mi nga xamante ni seesam lañ jógee kon bu fekkee dafay dugal loo am na si benn xam bëgg na ginnaawam bu demee kenn du ko toppati si mbir lu moom nga xam ñoo fi nekkoon di joxe ay ordre ak ñi nga xam ñoo ko doon def bëgguñu topp leen bu fekkee dafay laalaal ñi nga xam ñoo waa kër waa Pastef ak waa kër Ousmane Sonko yi kooku loi boo xamante ni pour que boo gisee mu ne général am na lu mu si jublu mais man mënuguma see wax dara may daal li nga xamante ni mën naa ko garanti mooy bu ñu xoolee expert motif bi mu xam lu wàll boo xamante ne luy dajale la luy boole la ba pare maanaam ñi nga xamante ñoo si ñàkkale ya ñu si faatu ak ñu si eh, am ay gaañu gaañu blessé yi ñu delloo leen li nga xamante ne mooy seen cër ak seen aaq ak seen yelleef ak ñi nga xam dañoo ñàkk seen liggéey su boobaa dañ naan kat kii dafa pare pour que maanaam Sénégal nekkaat si beneen Sénégal bu bees à partir de 2024 parce que dama bëgg à partir de 2024 élection yi ba jàllee ñu Sénégal ñu fàtte li fi nekkoon lépp pour indi lu bees mais bu ñu fàtte tamit li fi nekkoon bu ñu fàtte waale jëf ju ñaaw ji bu ñu fàtte laal ñi nga xam dañoo ñàkk seen liggéey ak seen bët wala seen tànk bu ñu fàtte ñi nga xam dañoo faatu bu ñu fàtte ñi nga xam dañoo ñàkk seen euh, seen seen alal ak ñu taal seen kër yi kon jàpp naa loolu il faut que ñu ko ba nga xam ni Macky Sall ba ñu toog fee rek def ko yónnee ko député yi nangam nangam man bu ñëwee en tant que responsable en tant que njiitu parti kilifa diine nekk ci commission de loi nekk vice président groupe parlementaire bi dinaa ko càmbar xool ko bu baax ba xam lii inter mi la wala du inter lu mu si man doon dinaa wax la mu war a wax ak askan wi pour position bi ma jël dinaa ko jël waaye daal du ma jël position boo xamante ne askan wi d'accord li ñuy xaar daal mooy Macky Sall respecter décision conseil constitutionnel mooy le deux la mandaam di jeex man ni ma ko waxee téléphone ba tax ma dem si dialogue bi mu respecté kàddu googu ni mu ko waxee aussi tamit ci li nga xam mooy dialogue bi wane ni maanaam moom le deux boobu noonu soxlaatul day dem pare na pour pourquoi mënul nekk ba la première mu démissionné des benn fan pour bañ indi problème président assemblée sans yore intérim bi benn fan boobu lan lan lay wàññi man dama koy proposé mu bañ a dugal Sénégal si jeexi jaaxal naan dañuy appliquer article 36 article 31 mi ngi fi. benn fan la premier ci guddi na def division le deux euh, président Sall sax yor intérim bi benn fan boobu xanaa war na koo may Sénégalais yi pour jàmmi réew mi loolu laa koy euh, loolu laa koy conseil mu def.